ziara annuelle Serigne maam Thierno Mbacke samedi le 13 avril lay am ca Fatick Serigne Abbas Mbacke xalif maam Thierno Birahim moo ñuy woo ci ziara bi marabu bi di Alaaji maam Thierno Mbacke ca Daaru Marnaan euh, daayira Mafatihul Bichri et toute la famille de Alaaji Ibra Seck ñoo koy amal ca Fatick mbokk yi Asi yaa ngi toog <laughs> yàlla yàlla defal jàmm si sa ngaar jar yàlla ko yàlla defal jàmm turandoo moo baax eh Pape Sène mi nga xam ne ndol ndol ay américain ñoo ne ñoom am na benn dëkk bu tudd ndol-ndol ñoom dañu bëgg jël ndol-ndol ak léegi ñoom daal koy adopté waa léegi Pape Sène maire ba est-ce que dana nangu loolu war du ko nangu ñu seeti Pape Sène borom ndol-ndol jërëjëf jërëjëf wax ngeen Pape Sène gaynde gaa ngi ñëw ci séeréer ah, ah, ah, waaw man gaynde laa nag wax dëgg yàlla man Pape Demba Sène bi ma yàlla dimbalee ba ma nekk avocat juddoo ndondol màggee ndondol jàngee dakaar am ay soxna ndondol am doom ndondol man bokkuma koo xam ne danga nga juddoo ndondol liggéey Dakar bàyyi fa nekk fa man ndondol laa gëm guddi guddi guddi fanaan di waaw en tant que qu'avocat nekk ci droit de l'homme xam li nga xam ne mooy àq ak yelefu doomu aadama tax na may waxtaan ak sama benn xaritu avocat bu mu ne ma am na dëkk bu tudd ndol ndol ci Amérique ñu bëgg def nag ndol ndol bi à l'américaine te bu soobee yàlla kentanaa président Macky Sall bi ndol ndol bi dana mel ne ndol ndol bi nekk ci ginnaaw New York li ñu bëgg mooy benn bu njëkk bi fexe ba séeréer yi ñun suñu kalxal pulaar yi xam na ne ñun raw nañ leen nan lay amee mooy mm-hmm. booy wax ci anglais what's your name mooy nan nga tudd soo koy wax ci séeréer looy wax nam neexee kon nem ba feeñaa ca nem anglais ba boo ko boolee kon benn la waaw américains yi nag ñoo gëstu ba xam ne dafa amoon jàmbaar nit ku ñuul mm-hmm. ku am fit bañ ko jàppee ne ko foo bàyyee ko mun a Afrique fan mun a Sénégal ban dëkk mun a Bambey fan ci Bambey mun a ndol-ndol kooku nag nekkoon jàmbaar bu mag ba dëkk ba ci boppam bokk na ci ñu ko sant foofu ci New York ci ginnaaw ñu tuddee dëkk ba ndol-ndol. donc ñun suñu problème numéro un mooy. fexe ba état Sénégal tëli boobu nga xam ne rang-rang la ñu daal koy goudron ba mu ñuul kooku dugg ci biir dëkk bi waaye sama ambition man en tant que maire. li ma bëgg mooy. fas. ak li nga xam ne mooy mbaam. finish dootul amatul teen dootul amati ndol ndol lampe pétrole wàññeeku na bu baax biir ndol ndol amatu fa sax problème ndox yi ñuy wax ndol ndol dafa am ñoo xam ne connecté wuñu woon ci zone Ndondol dañ leen connecté woon feneen waaye loolu nag léegi problème bi dinañ ko réglé ak collaboration ak samay lijjanti ba Ndondol nekk ville boo xam ne à jàng te ñëwee woo dem ci école tayel danañuy dugal ay nit yoo xam ne dañ leen fekk seen kër jàngal leen ba ngeen mokkal Ndondol dina nekk ville boo xam ne 24 heures dafay électrifié ñaareel bi mooy suñu mbokk Haalpulaar yi dañuy faral di tooñ naan séeréer yi dañoo bëgg soos d'accord naa mais léegi soos googu duñ ko jëndati bu taxoon nit jugee dakaar fii pour lekki soos ndol ndol pour lekki soos dakaar kon jegaan ndol ndol nga xam ne soos jaral na ko jóge ndol ndol ñëw ba dakaar sayee dootul amati léegi maa ngi waxtaan nag waa ndol ndol États-Unis dañuy jox machine boo xam ne bépp séeréer boo xam ne da nga namm soos dootoo dem dakaar di ko lekkati dañuy jël machine bi def ko ci koñ bu nekk benn machine. jox ko góor yàlla yi ne ci koñ bi ñu surveiller ko. machine bi dafay am ñeex. dangay def ñeenti bouton la. ndox. ñeex. waaw ñuluk. yàpp. waaw soos mu dax dee génn. xaalpulaar yi nga xam ne ak olof yi dañuy faral di tooñ séeréer yi naa leen da ngeen bëgg mburu jeex na xale bu judd ba ba ngay am fukki at ak juróom dootoo jënd mburu ku ubbi boulangerie ndol ndol bu yow nga tëj ko dañuy defar boulangerie ordinateur koñ bu nekk dañ fay samp machine boo xam ne solaire la boo bëgg a tey lekk mburu mu nekk sa xel da ngay ñëw ci machine bi ñeenti bouton la ndox farine jaxase levure mburu kon man sama gis-gis man Pape Sène ci juróomi at yi nga xam ne moom la ñu jëm bu soobee yàlla te incha allah noonu lay demee di nga gis waa dakaar yu bàyyeekoo dakaar ñëw dëkk ndol ndol because ndol ndol dafa nar a nekk dëkk bu nar a ibbeeku ndax sama xalaat ak xalaatu américains yi moom la ñuy soppeeku yéen a may dégg te da ngeen commencé gis ay séeréer yu xees ndax séeréer dëgg dafay ñuul am na yu xees waaye dootu leen diwoo xeesali yéen jigéen ñi ndax da ngay bëgg a dem boo bëggee xees dañuy def ay fontaine ay ay ay ay yoo xam ne da ngay ñëw ne juróom-ñaari bouton la da ngay ñëw ne man ñuul bëgg soppeeku xees te duma diwoo ndox feeñal nga daal di bës xees ñaareel bi réglé naa problème boo xam ne moom la ñuy wax connexion humaine di nga nekk ci dëkk bi nekk ak sa mbokk te doo ko xam bëgg jëkkër kee bëgg jabar te bu sañoon takk mbokkam connexion humaine lay doon boo amee portable da ngay ñëw ba ci portable bi nga bind ne man maa ngi tudd Awa Diouf recherche Marie même sang Diouf soo ko bindee dangay bàyyi tak takk mu déclenché sa doomu bàjjan bu la réeroon wala sa doomu nijaay bu la réeroon kooku tamit muy seet jëkkër wala muy seet jabar bu sant Diouf mbokk sa téléphone da ngay jékki-jékki mu yuuxu ne awa kenn moo di ngeen xale yi dinaa leen neexal yéen bien xale yi très bien xale yi très bien xale yi très xale yi